bi di mujj salaamaaleykum sama mbokki internet yi j'espère que ni si jàmm bu bees donc di la wax bienvenue ci seen rubrique cas bu bees daal di mu mel ni ñu naan Nabou Leye dañ ko mujj setal donc bu ñëwee tuuti ci ginnaaw rek Nabou Leye dañ ko téye woon parce que dafa amoon ñaar ñu seen bakkan jóge woon fii donc muy Aziz Dabala ak ki naan Waly ki mu fatoon këram donc benn gang moo leen rey ñu jëloon Nabou ñu ne moom moo ko yàkkal moom moo leen reylu ñu arrêté woon ko ba defeere ko camp pénal bu daal di mel ni changement dafa am donc ñu ne na Leye daldi di nay libre dëgg la du dëgg ñëpp a ngi topp kaa bi di suivre action di déglu aussi fin mbaxane doone benn mais lu ci mënti am rek mooy instant bii nii na Leye libre na source nag ñu ngi ko jëlee ci diaspora 221